ci façon lañ ki nga bokkandee ak baay dina doon ki nga bokkat baay rek dina doon ki nga bokkandee rek dina doon mhm. waaye biñ ñëwee ca seen doom ya ki nga bokkandee ak baay doomam dina doon mhm. ki nga bokkat baay rek doomam dina doon waaye ki nga bokkandee rek doomam du doon mhm. nga dem dem delluwaat xam nga eh, bi ñu tuddee baay baay itam am na ay mbokk ñu dem ca mbokki baay ya sa baay kim bokkandeeg baay dana doon kim bokkat baay rek dina doon kon ñooñu ñoom ñoo ñuy doon kim bokkat ndey dina doon na eh, doomi doomi kim bokkat ndey ak baay dina doon doomi kim bokkat baay dina doon bot doomi kam bokkat ndey du doon kon daanaka jeex nañ. li ci des mooy jëkkër ci góor ñi dana doon na beneen bi mooy mu'tiq mooy ki goreel dana doon na xam nga bul fàtte ne aji ayda bul fàtte ne waxoon nañ ne sabab yi tax nit di doon na ñett lañ. Hmm. maanaam kii ñëw laaj ci alalam benn ci benn ci ñetti gongeekuwaay yi rek lay mën a jógee. day laaj ci alalam ñu ne ko yow. lu la ci boole mm-hmm. mu ne sëy mm-hmm. foofu jëkkër ak jabar ñoo fay doon na mm-hmm. wala yow lu la ci boole mu ne deret wala yow lu la ci boole maa ko goreel ñetti ñetti bunt yooyu fi la nit di doone bi ci gën a rëy nag mooy lu la ci boole nga ne deret bële bu li ma ci boole mooy sëy moom ñaar rekk lañ bële it kenn rek la wala ñaar su fekkee góor la wala jigéen mm-hmm. waaye bii nag mooy bi nga xam ne moo moo yaatu moo moo tasaaroo mm-hmm. kon aji ayda suñ ko delloo te di ko lim mm-hmm. pour ci ñu gis ko mu leer ah, baay dana doon na baay dana doon doom bu góor dana doon doomi doom bu góor dana doon na bu góor eh, ki nga bokka ndeeg baay dina doon ki nga bokka baay rek dina doon ki nga bokka rek dana doon ki doomi ki nga bokkat ndeeg baay dina donn doomi ki nga bokkat baay rek dina doon na mm-hmm. eh, eh, sa sa sa broda papa ki bokk ak sa papa ndeeg baay mm-hmm. dina doon na mm-hmm. ki bokk ak sa papa eh, naka lañ ko tuddee baay rek dina doon na ki bokk sa papa doomi doomi ki bokk ak sa papa ndey ak baay dina doon na mhm. doomi ki bokk ak sa papa baay mhm. dina doon na ba pare jëkkër dina doon na ku goreel dina doon na muy fukk ak juróom muy fukk mhm. kon ñooñu ci góor ñoom rek a mën a doon fi ne nii nag eh, ku nekk ku ku mokkal lii ku ko xam eh, su nit ñëwee ne damay laaj dono soo ko laajee loo bokk ak nit mu wax rek man na am man nga caa xamee ndax kii sañ naa doon masalan tey su nit ñëwoon di laajte si nga ne ko waaw lu leen boole mu ne kii maay nijaayam ndax gis nga ci fii nii fii ñu wax nii yëpp nijaay déedéet déggu la ko fi nit dafa ñëw doon nga ne man maag maag maag maag ma naka la man maag doomi nijaayam la doomi nijaayam la mhm. wala man maag yaayam ñooy sëy mhm. wala man doomi jilleem la mhm. dégg façon yooyu yëpp ku manti doon da nga koy naan déedéet fukk juróom yële bokk loo ci de demal kon fexe ba xam fukk juróom yooyu lu am solo la waaw eh, loolu nag su fekkoon ne nit dafa gaañu góor ñi ñëpp dajee ñëpp dajee ndoor koo xam ne ba mu gaañoo am na am na baay am na maam am na doom bu góor am na sët bu góor am na ñooñ am nañ ah, dégg nga maam am na broda ak seeni doom ya am nañ bàyyi tëx mooy seen brodaay papa ñoom ñëpp daje nañ mm. su boobaa nag dañuy wax yéen ñépp kenn du ci doon ñett rekk la ñoo ciy mën a doon <laughs> góor ñépp ñëw daje ñu dàq ñëm ne leen yéen ñett rekk kay mën a doon mm-hmm. baay doom bu góor mm-hmm. jëkkër ña ca seen roon bokkuñ. ñoom rek kay mën a doon. lu tax baay. Mhm. ñu ne baay kenn mënu koo teree doon na. Mhm. parce que moo amal. ki dee ci buntam la jaar pour juddu. dëgg doom. Mhm. kenn mënu koo teree doon na. baayam ndax kenn doxul digganteem ak baayam te moom rek la baayam am. Eh, jëkkër kenn mënu koo teree doon na jabaram. waaye ñi ci des soo ñëwee ci eh, brodas wala nga ñëw ci maam dañ koy wax ne ko nit manoo manoo xa doon sa baay ba pare doon na bàyyi jàmbur ah. soo ñëwee ci sët mm-hmm. dañ ko naan manoo xa doon na sa baay di séemting ba pare doon na ti bàyyi jàmbur soo ñëwee ci brodas ñu ne ko yow manoo xa do manoo xa doon ni sa baay ba pare doon na ti bàyyi jàmbur kenn ku ci ne fii dafa am bàyyi jàmbur bàyyi boppam wala mu am ku dox sa digganteeg niw bi su boobaa kon doo mën a doon kon góor ñi yépp suñu dajee ñett rekk ñoo ci mën a doon ñi ci des ñëpp dañ leen di iir loolu nag namun ne ñëw nañ ci buntab iir danañ ci bi suñ njàngale mi mhm. danañ àgg ci bunt buntab kiiraay nit ku ne ak ku la war a yiir waaye loolu dañ la ko jox rek général ah, kon léegi ñu toxu ci sa laaj bi nga xam ne moom nga laajoon keroog mhm. ne waaw jigéen nag mhm. jigéen toujours ci ni yàlla tëralee eh, doxalinam toujours rek mooy gën a néewal maanaam even ñi am accès ci góor pour donn ñooy ëpp ñi am accès ci jigéen pour donn moo tax jigéen suñ ko najee juróom-ñaar rekk lañuy doon ñoom rekk a mën a doon waaye suñ ko yaatalee fukk lañuy doon léegi nañ dellu ci fañ jóge woon ñu seddale ko ci peer ak ci banqaas ak ci car ci peer mhm. yaay dana doon kenn mënu koo teree doon eh, maam bu jigéen dana doon déedéet kook du doon hmm. maam bi jur sa yaay. déedéet du doon na. kii doon mooy maam bi jur sa baay. maam bu jigéen ba sa baay. waaw. astafurlah maam fale man maa nga dem ca. bële bële góor ña. maam bi euh, naka ndey ndey ndeyi ndey dana doon. maanaam yaay dana doon. yaay yaay dana doon. loolu ca ca kii ba mm-hmm. ñu dem ci. Eh, ci banqaas yi nga ne doom bu jigéen dana doon na doomi ah, na fële góor mhm. not na ko fa ngir doomi doom bu jigéen mhm. du doom mm. du suñ doom doomi doom bu góor suñ doom la waaye doomi doom bu jigéen du suñ doom li ko waral mooy lan eh, doomi doom bu góor toujours santu baayam lay am